ñaar fukki candidat ñoo nar a dem ci joŋante élection présidentielle bu 25 février atum 2024 loolee la conseil constitutionnel daal di dëggaal ñaari camp nar a jàkkaarloo mu di bu nguur gi ak bu kujje gi ñu mën a ber ci benn boor bi candidat bu Benno Bokk Yaakaar di premier ministre Amadou Ba ci beneen boor bi 19 candidats yi des. mu di critère boo xam ni sax daanaka du juste loola ndax opposition bi dafa fasantikoo loola mu am ay candidats yoo xam ni bokkuñu bëgg-bëgg bokkuñu doxalin ca noonee lañ mën a nemmeekoo ci coalition Yewwi Askan Wi daanaka lu mat juróom benni candidat Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye Habib Sy Malick Gakou Aliou Mamadou Dia ak Déthié Fall ca wetu ñooñee ñi mën a lim ay candidats yoo xam ni ñaleen leen boota ñu ngi tukkee ci ay coalition ak i mouvement yu majorité présidentielle waaye itam ñu ko jegi mu am ay candidats non alignés ay candidats centristes ñu ci mel ni njiital réew mii di Idrissa Seck ancien compagnon yu Benno ak yu Yewwi Askan Wi ca géew googee la ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne di dugg naka noonu Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye ca beneen boor ba Mamadou Lamine Diallo Thierno Alassane Sall mu mën a am sax pàcc bu am solo ñoo xam ni danañ bàbbeeku dem soutenir Bassirou Diomaye Faye wala sax beneen candidat bu Yewwi Askan Wi ngir ay mbirum politique ñàkk bokk bu Ousmane Sonko dana indi ay gàkk-gàkk ci élection bi ndax mën na am ñu rocc ci seeni candidature laata ci biir campagne bi ak ginnaaw campagne bi lee ngir dem farak favori bu opposition taxawaay bi PDS nara am nga xam ne candidat am dañ ko daal di téye dana am solo lool itam ci bi dara wóoragul ci élection yi ñu dëgmal ndax lu ne mën na cee xew daanaka ñu ngi ci ndorteelu processus électoral bii nga xam ni dana jafe cerné waaye nag ñi gën a muus ci wàllum politique képp ñoo ci nar a génn ak i ngañaay